Seynab Seynab noo def. maa ngi fi. maa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. lu lay métti fi ñu nii. yaram yi mooy métti di xasan rek. waaw ak di xub di teg. waaw di xolleeku rek heure boo xëyee di muy xolleeku rek. di xub waaw. guddi gi mbaa di nga nelaw. guddi gi damay wokkatu rek asamaan si denc di xoolee. lan nga bëgg a wax ñi lay seetaan pour ñu jàppale la. dimbali ma ngir yàlla rek ca yàlla tax tëddaa bi yàgg na trop métti na. te dama bàyyi ak njaboot ñu dimbali yàlla tax. noo dundee feebar bi ak sa yaay ak sa yaay ni mu mel ci yow sànq jox nañ ko ah, sa diggante ak sa yaay. yaay sonn na trop yëkkati na bay bëgg a dee heure bu xëyee yëkkati rek bëgg dee yërëm ma bëgg a dee waaw sonal si ñoom waaw na noo gisee émission bi di Dakar Buzz Social joge ba Dakar ñoo fekk si la fii dimbale la quarante mille ngir bëgg nga jóg. Dakar Buzz fay ñu ngi leen sant leen gërëm sant nañ leen a fay mënu leen a fay jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay ci taxawaay bi ngeen taxawaay. salaamaaleykum amatenet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar. di leen ñaanal jàmm waaye di am mbégte jàkkaarloo ak yéen seen émission mag bi Dakar Buzz Social ñu ngi waat fii ci Touba fu ñuy wax Mbacke ñu ngi fii ci Mbacke ñaari baay Fall seet fee nag sunu sœur boo xam ne dafa tëdd teraay bu yàgg sonn na faju na ba ay bokkam li noom lépp jeexal nañu tàkk wax dëgg yàlla ñu ne ne woon nag contacté ma di ma woo ma ne dinaa ñëw jaamu ci yàlla waaye di sant yàlla ci ningeen nii ni jàppale ci vidéo yi di sant yàlla ci ni ngeen ni toppee ci vidéo yi gis nañ kaa dugal lu métti métti rek di ngeen ci def li ngeen mën ak li ngeen mënul ba solution am ci ma ciy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla gën leen a dooleel te jàppale leen fi ngeen koy def mooy numéro plateforme Dakar Buzz boobu di 78 601 11 11 nga xam ne dañ ne képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel Dakar Buzz sociale loo yor xeebuñu ko woonu ko sànnee foofu rek danañ ko jël bu ñuy seeti malaat mu néew mu bari ñu mën ko cee jàppale ndax lu baax boo ca nekkee yaa ci jiitu ma ci sant yàlla gis ni ngeen ma ciy fekk see di ma ci suturaal di ma ci jàppale di ma ci dooleel tey ñëwaat nañ fii ci tuubaa quartier bu naan Mbàkke ñaari Baay Faal ma seet suñu sœur bi moom nag xaw na fatigué moo tax wax ji ma moom tey du mën a yàgg damay waxtaan ak yaayam ji nga xam ne moom moo ko yor feebar bi kañ la ak nan la ko dale solo si maa ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi lay fay ku baax. tribunal la. man Ndeye Diop laa tudd. Ndeye bi nu mu tudd. malade bi Seynabou Gueye. Seynabou Gueye lii ko dal depuis kañ la. am na ñaari at moom. nan la ko dalee. ndax bi ko tàmbalee dañoo yaakaar ndoxam siti la. Mm-hmm. ba tax tàmbam tàmbalee ñu yóbbu nañ ko jànnatu. Mm-hmm. am na fa weeru manqué ñaari fan. Mm-hmm. waaye bu ñu gisee tanewut. danañ ko yóbbu fii ci wat ko nañ ko fii Thiès ci dëkk bu Thiès. dana fa jël rendez tënut ñun daal fu ñu xam fu ne dem nañ fa dañoo jeexlu tàkk bàppam jeexlu na yaayam jeexlu jëkkëram noonu ba feebaree ba tey daal fu ne fu ñu xam fu ñu wax ne dem nañ fa dem nañ fa léegi dañoo dem fi ñu amatul fu ñu yóbbu fenn bëgg ku ñu ñu dimbale saaku ndimbal ku ñu ndax ma am na borom kër am na borom kër waaw am na tam dem na ba jeexal tàkk fu ne dem na fa fu ne waaw xool ngeen hôpital yeeg ndoxu garabu olof yeeg yëpp xool ngeen yëpp xool nañ ko fu ñu di tegtal ki faj garabu olof dem nañ fa lopitaan bi ñu tegtal na defee dem nañ fa waaye bu ñu demee ba ñëwit nii rek waaw sàkku ndimbal dem ba jeexal tàkk waaw mbokk mi ndimbal mooy sama taw moom mi na ñaari am na mm-hmm. yor malaat mu mu xeel xeetu métti bu mel nii te doole bariwul nan lay mel ah xanaa métti rek métti métti lool te sonn mm-hmm. waaw métti lool nag nañ jàng ko ndax ko yor nga toog jàkkal moom te amoo leen loo ko a faj métti na métti na lool waaw métti na lool moo tax nañ ñu sàkku am internet Dakar Buzz dafay metti boo timul malade bi sax mënoo xam li muy jànkonteel parce que sonn na ay bokkam jeexal noonu xam nga ni teraayam bi ñaari at day metti waaye ñuy dellu di gën a santaat yàlla di xam ne yàlla mooy tege mooy teggi yàlla lu mu teg rek nañ ci sant yàlla te xam ne yàlla moom rek moo man lii yàlla na ko yàlla teggi yàlla na ko yàlla wéral ma ci tàllal loxo jaamu yàlla yi nga xam ne yéen a def lu baax ci Dakar Buzz Social ma gis vidéo bu ma taabal rek ngeen sot sotoo ko ku ne def ci lim man may tàllal loxo rek ngeen fekk si ma ci kaab yi metti na sonn na te mooy taaw yaayam te it dafa yor këram di sëy waaye lii baare na ko ba mënatul def dara yàq na activité yam yëpp yow sax say activité dootul bari tax dootoo mën a dem fenn sama mbokk bu mu tëddee ba léegi dem fenn ndax kii mu ko den bàyyi fenn ndax moom lu mu mhm. dem fenn bu yàggul rek sama doom ju góor gaañ bi waaj a màggal sama doom ju góor moom dara jotu ko woon daa si bur ko ca taxa ca gaañu mhm. ma boole nag xale yooyu ak sama xol xam nga fi ne ba ma xoolee xam na sax ma ne waaw sant yàlla baax sant sant rek gis nga yàlla kum na tafay du la liggéey loo yàlla la mu def rek moom xam na dañuy ñaan rek yàlla teg ko te yàlla ku bëri yërmande la euh, yàlla moo ne ñaan leen ma may leen ko ñaan rek te nga dellu di julli di ñaanal sa doom ji yàlla yëkkati ko. amiin waaw dinaa ko ñaanal leen gërëm di leen ñaanal fan lu gudd ak wér def moom lu baax la ñoo ngi ñaan ci kàttan yàlla yoon sa tubaab yàlla na yàlla gën a jàppale bu baax. ba lii nga mën nga gën koo mën yàlla defal la gudd fan ak xéewal ak wér bak sëñ Fallou Mbacké képp ku feebar tëdd yàlla na la yàlla yëkkati bak sëñ Fallou Mbacké lan ngay wax bonne volonté yi lay seetaan te bëgg laa jàppale pour sa doom ji jóg ah waaw xanaa sàkkunde bi ñu dimbale ma rek maa ngi ñaan ci yàlla ñu dimbale ma ma faj sama doom ji mu wér te ko waaw dañ ma dimbale ma faj ko ndax fi ne sonn naa jaaxle naa amatuma fenn fu ma jëm ñëwatuma dara bàyyi mu yóbbu dara jëkkëram noonu maa ngi ñaan ci kàttanu yàlla ñu dimbale ma faj sama doom loolu ci néegam ndax dafa bàyyi ay gone mi ndaw ñëw tëdd fii waaw ah, am nay doom. ama amoon na ñeent doom waaye ñaar ñi dañoo nelaw kenn ki ci biir feer bi la nelaw. Mm. am na ñaar ñaa fa des ñoom la fa bàyyi ndax maa ngi saako ku ma dimbali ma faj sama doom wallaahi ñaan. jërëjëf am internet Dakar Buzz dégg ngeen yaay ji li mu wax moom mi tëdd am na ñeenti doom ñaari ñoo làqu ñaari ya fi des kenn ki ci biir feebaru ci la dem ba tax na Dakar Buzz social mi ngi sant yàlla ci ni ngeen koy jàppale ci vidéo yi. wax naa ko sànq ci plateforme boobu ñu joxe muy 78 un 11 11 nga xam ne gis ngeen ni ngeen ñu ci fekk see diñ ci jàppale mi ngi nuy dimbali mu ngi dimbali malaat yi ni fekk ndax mu néew mu bari dana am lu leen fatal ba tax na Dakar Buzz sociale jël na ci loolu ngeen di dimbalee quarante mille dimbalee ko malade bi pour di ñaan nag sunu quarante mille li barkeel ba mu jur lu ëpp li ñu ko jox ba mu mën a eggale traitement am loolu la ñuy ñaan yéene na ko jox ñun ñu ko joxaan malaati waaye li war a faj soxna si du quarante mille waaye danañ ñaan fi yenn vidéo yi daan jaar rek yàlla na fa bii jaar mu barkeel ba mën a eggal traitement bi yàlla yëkkati ko ndax sonn te jigéen la te jaboot la te ku ne xam ne jigéen moo yor société bi yàlla mi am jàmm te yëkkati nag yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla na ko yàlla saafara waaye ma leen ci tàllal loxo yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan Dakar Buzz Social kon ma jox ko quarante mille nga xam ne Dakar Buzz moo ko dimbalee ci turu Dakar Buzz social. Dakar jox na ko quarante mille di juróom-ñetti junni yoo xam ne ñun ñoo ko dimbalee bu nu amoon lu ko yëkkati tey ñun ñoo koy faj buñ ko yàlla dénkoon ci ñoo koy jël jël ko en charge comme doole barewul na suñu yéene lu na am. ak sunu ñaan ak di ci tàllal loxo yéen ñi nga xam ne yéen a may suturaal ci vidéo yi yéen ñi nga xam ne lu baax leen tax a jóg yéen ñi nga xam ne jàpp ngeen ni li ngeen yor suñu borom moo leen ko jox te lu baax tax mu jox leen ko ma leen ci tàllal loxo ngeen dimbali ma ci suturaal ma ci wallu ma ci sunu malaat bi mu jóg moo ko juróom bi ba mën a dellu ci njabootam ngeen ndax ku ne xam ne ni tëraay bi yàgg na te dafa bàyyi ay doom yoo xam ne ay moomi itam xamuñu dara Euh, yaay booy yaa ngi faju sa yaa ngi faj sa doom ji dem nga ba jeexal yoratoo dërëm Dakar Buzz social jox la quarante mille dimbale la ko euh, nin la bettee nii yëg-yëg bi lan lay doon. kon sant yàlla rek sant yàlla bu baax di ñaan fan nu gudd ak wér yaram da ngeen bëgg a yàlla na fa yegg baax sëñ Fallou Mbacké waaw sant naa bu baax gërëm naa ndax dëgg yàlla lii moom daanaka ndimbalu am maanaa sant bu baax dinañ gërëm dina ñaan fan nu ak wér gu ñun yàlla nañ ko gën a man ak sëñ Fallou Mbacke ndimbal gi lii moo ci gën a tuuti walaay lii ñëw dina ëpp lii waaw jaa wax loolu xam naa ko moom lii ñëw dina ëpp lii xam naa ko waaw jërë ngeen jëf sant nañu baax mhm. waaw sant nañu baax ndax ñëpp sant nañu daal mhm. dëgg yàlla waaw sant nañu baax jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fay mhm. Faty Lune tur bi noo tudd man Ndeye Diop laa tudd Ndeye Diop waaw malade bi Seynabou Gueye Seynabou Gueye waaw jërëjëf Seydou am internet yu Dakar Buzz Seynabou la mi ngi tëdd tëraay bi yàgg na sonn na lool am nay doom ma leen ci tàllal loxo numéro am dina défilé ci baaru écran bi numéro am numéro papaam lay doon lu ko ci waay yéene bokk ci tàbbalee rek dana ko jël continuer ci moog yaayam ñu faj doom ci moom nag sonn na bëggoon nañ ko wax la mais xam naa ne wax loo ko dafay xaw metti parce que mi ngi tëdd te li muy yëg moom mi ngi koy yëg boo ci boolee boo ko dékk ay micro day xaw a metti dinaa essayé nag jéem ko xool laaj ñaari baat ba xam dina mën a tontu waaye xam naa ne sonn na waaye ba leen ci tàllal loxo rek. ci yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne yéen a ngi suivre Dakar social ngeen wal ma ci sëy bi nga xam ne tëraayam bi yàgg na te wallaay al azim ku ko defal jàppale ne suñu borom nga lebal te ko lebal yàlla yàlla dina la fay xeebu na dërëm xeebu na ñaar fukk waaye am nañ ko yónnee mën ko jàppale seen bu mu jóg ci micro bi Fadal mi ngeen tàmm di gis la ci cadreur bi Seydou la fii la ci Touba quartier bu naan Mbàkke ñaari Baay Faal metti na sonn na wallaay al azim dañuy ñaan rek yàlla sax may nu xol bu nu yeggale émission bi waaye métti na foo ko takk rek weesu na fa yàlla yàlla yëkkati ko yéen ñi jàpp ci émission bi yàlla yàlla jàmmal leen te yàlla may leen xol may leen ay xéewal yu ngeen di joxe ci barke Seydina Mohamed seen émission Dakar Buzz Social yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm